suñ demee nag ba ñu laaj la nga ne doo wax waaw doo wax déet mooy laa ilaha ulaay wala ilaha ulaay mu saf sa bii na bay na saalik mooy waa daal dañ koo gis mu dugg ci jàkka ji génn ñu ne julli na ca suba sa ñu gis ko mu génnee ci église bi ñu ne catholique la maanaam xamuñ ci ban nga ci nekk ci ñaar yooyu laa ilaha ulaay wala ilaha ulaay mu saf sa bii na bay na saalik le président de la république loolu daal jaaxal na ma ñun nag du ñu saaga du ñu wax lu ñaaw xoote wuñ it ab xeex xoote wuñ it kaay leen ñu xeex ñun xoote loolu de jàmm la ñuy woote ci réew mi ñu bëgg nag jàmm jooju nga fekk suñu ci mooy liy yëngu ci réew mi te ñëpp ñaaw ci njort ne mën na taal réew mi nga teg ko ci suuf président de la république man Serigne Ibrahima Dramé maa ngi lay ñaan mbiri Ousmane Sonko yii nga xam ne tey jii mooy actualité ci àdduna bi waxuma sax senegal ñëpp ngi wax te yow jàmm la taxoon a jóg jàmm moo la taxoon a jóg jàmm moo la taxoon a jóg lañ yaakaar ci yow. damay ñaan damay ñaan nañ teg mbir yi ci suuf ñëpp am jàmm police bi noppalu gendarme yi noppalu dégg nga ñi yoon liggéey mën a liggéey ndax fi mu ne fi ñu toll nii tey dañu am leneen loo xam ne moo ñu day soxla mooy feebar bi génn ci réew mi pikiir yi ñëw na alhamdulilah ñu ngi lay sant ñaan yàlla nit ñi kum doy te bañ koo forcer kenn nag buñ forse kenn pikiir yi kum doy ay ca kum doyul doyu la ndax kenn ku ne sa bopp buñ ci forcer kenn jàmm nga bëgg ci réew mi moo tax nga indi ko ku mu doy ay ca bisimilah ku mu doyul it ñu bàyyi la ak sa jàmm waaye nag fi mu ne fi ñu yu nii mooy fexe ba mbas mi génn ci réew mi fexe ba jàmm am fexe ba it mandat bi ñu def ko ñaari mandaa ya nga waxoon fexe ba mbiri Ousmane Sonko yii ñu teg ko ci suuf ndax am na yeneen yu fi nekk yoo xam ne mu ngi fi kenn waxu ci dara kenn waxu ci dara lii moo wëf sama bopp bi moo tax tey ma ne naa ñëw tey man ñaan la njëkk ñaan ko nag ci turu kilifay diine yépp nag. ci seen daraja ak seen barke ñu teg mbir yi coow lii ci suuf ndax kat seetaan ba day takk nga doog a jël say bant wala say upp di di fay am na lu ko gën te man wax dëgg yàlla mbaax laa xamoon ci yow ca ba may jël sama carte di la ko jox ak say kàddu waaye su ma demee nag ba may gis ku ma am ndey ni koy waxee ak ku ma amul ndey man nag du ma politicien ndongool daara kese laa jàmm laa woote ci Sénégal it nag jàmm laa bëgg mu am ci réew mi itam waaye nag maa ngi ñaan yàlla lii di yëngu ci réew mi nga fexe ba mu sedd teg jël ndox mu sedd sotti ci mbiri Ousmane Sonko yi dama lay ñaan yow yaay kilifa Sénégal yaay kilifa réew mi yow la ñu wóoloon teg ci réew mi léegi nag nee nga yëgoo ko woon léegi yëg nga ko comme yëg nga ko nag ndax mu ngi ci journaux yi mbedd mi ñu ngi ciy wax ñëpp a nga ciy wax su ko defee nga jóg taxaw def ci sa kem kattan ba lii fay seytaane xajut ci réew mi fi ñu toll nii dañoo am beneen seytaane bu mag muy corona président de bi République ñu lay ñaan fi sabilillah nga bàyyi lii teg ko ci suuf wax ci sa kem kattan yaay kilifa réew mi boo bëggee mu ferene rek mu fere ferene boo bëggee mu sedd rek mu sedd mu am ci réew mi ñu fexe nag ba corona bi génn senegal tama li ma jaaxal mooy nit day def lu ne weng ba ñëpp gis ko kenn du ko wax dara xam ku def lu tuuti maanaam ku sàcc ganaar ñu tëj la ñaar fukki at ku sàcc ñay. ñu bàyyi la loolu daal man moo suma bopp mu jaaxal ma may ab saalum saalum nag boo xam ne wax dëgg yàlla li ñu maam ñi nàmpal yar ñu ci muy suñu kilifaay diine muy njub mooy wax li nga xam ne moo nekk ci yow ah loolu lañ ñu yar moo gisee ne demee na bu gis loo xam ne daf ñu jaaxal dañuy laajte de ndax am na yoo xam ne mu ngi xew ci réew mi te nit ñaa ngi bëgg a mer nag kilifi diine yépp ngi bëgg mer te président bu ma sañoon day loolu duñ ci àgg kilifa yi am na ñoo xam ne wax nañ am na ñoo xam ne waxuñu mais ñu ngi dañ ci mer ci seen xol dara war la ko lu ni réew mi doxee ku def lu ne wàññi kenn dul wax dara ñenn ñi bu ñu defee yenn yi ñu jàppaleen leen dal leen ci sa kaw am na benn journaliste bu ñuy wax xaw ma Pape mu ngi wax ne ku artuwul da nga atte ma ngi dégg muy wax loolu toujours ku artuwul da nga àtte kon nag sama mbokki kilifa yi diine yi ndax ñun ñëpp ci lañ bokk maa ngi leen di ñaan nañ waxtaan ak président de la fexe ba jàmm am Sénégal fexe ba ñëpp am jàmm jàpp-jàpp yi ñu jàpp nit ñi itam ñu fexe bàyyi nit ñi ñu génn si réew mi liibar réew mi am jàmm kaso yi fees na feebar bi mu ngi ne gatt ci dëkk bi tey boo jëlee koo xam ne dafa tawat xamoo ci moom ab santéem fu mu toll nga dugal ko ci kaso moom jëlee fa feebar wala mu fekk fa feebar loolu yëpp problème problème lay doon ci dëkk bi kon nag damaa bokk Sénégal dëkk Sénégal yaroo Sénégal bokk fi ni nga fi bokkee nga dëkk Fatick ma dëkk Saalum ñu bokk Sénégal yaroo fi nga am ci cër ma am ci cër waaye nag cër bi tey yow la ko yàlla jox yaay président de la république nangu lañ la ko ñun nag jàmm rek a tax ñu jóg jàmm rek waaye waaye mu monsieur le président de la république mbiri Ousmane Sonko yi teg ko ci suuf fexeel mu sedd lépp loo xam ne soo ko yëngalee nga xam ne lii na lay indi comme ni nga ko waxee am na ñoo xam ne su ma leen jàppee dëkk bi tàkk am na ñoo xam ne maa jël sama coon teg si seeni i dossier te it beneen bu ci tool beneen bu ci dool itam mooy maa ngi lay ñaan président de la république nga taxaw ci nit ñi jóg di xotti suturaayu doomu aadama yi ku amoon ay problème ku amul problème bariwul ci àdduna bi ku jaarul ci ndaw bariwul ci àdduna bi waaye nañ bàyyi tey kuñ bëgg a toroxal dem seeti say yi di ko souligner te kuñ ko def du la neex kuñ ko def rek kenn mën a doon ci àdduna du la neex nañ bàyyi xewet woowu xewet woowu lu day waral day taal dëkk bëri na luy xew ci réew mi rek xotti handistori moo ko indi xotti handistori moo ko indi. ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko jamono ji dégg nañ li nga xamante ni moom moo di problème am ak Adji Sarr est-ce que tamit euh, tey leaderu Pastef bi woo bi nga xamante ni mi ngi koy woo jeunes yi ngir ñu génn tey jii est-ce que nekkul euh, benn risque ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jeunes yi. bu fekkee loolu moo ko def ñu ngi koy ñaan réew mi day jàmm la soxla réew mi ñi ko fi bàyyi dem jàmm ci lañ ko tabax réew mi ñi fi dëkk itam jàmm la bëgg te it li fi nekk dafa doy soxla muy feebar bi. kon moom Ousmane Sonko keneen ak keneen ak keneen lu ñu leen di sant mooy jàmm ci Sénégal Sénégal jàmm fi xaj waaye nag nday mbili gi dëgg mooy ki nga xam ne moo seef ñëpp muy président de la république am na loo xam ne day tax xale yi mer kilifa yenn yi mer te am na ñoo xam ne mer nañ te waxuñu te lu ko waral mooy injustice bu jégg dayoo injustice bu jégg dayoo munoo na ñii duma leen laal ñii dama leen di laal ñii su ma leen laalee def dëkk bi yëngu waaw su laalee ñii dëkk bi yëngu xam nga loolu soo ko waxee rek wax dëgg yàlla ñun suñ ko dégloo di ko dégloo di ko dégloo daf ñuy jaaxal ñun nag ñëwuñu pour lu rul rek jàmm ci réew mi ñu ngi lay ñaan monsieur le président de la république nañu jéem a xemale nit ñi Masamba ak Mademba ak Alpha ñu yem te it nit day def declaration bu ne wàng bu garaaw dara du ko ci fekk kenn wax tuuti rek dara fekk ko ci soo gisee ñu koy wax nag mooy yenn nit ñi dañuy ñëw ci ñun di ñuy rencontré yooyu yenn yi léeg-léeg ñu xool tali yi di ko gis bu fekkoon ne day nettali sax waaye da ngay xool tele bi dégg sa bët loo xam ne ni lu wér la kon nag man mii di wax ak yow lu nekk wax naa ko ci internet bi bi ma nekkee Paris ci lu baax ci yow boo ko seetee danga ko gis bokk naa ci njëkkoon di wax lu rafet waaye damaa dem ba jaaxle nag damaa dem ba xam ne fi mu nii xamatuma fu ma jëm ñu ngi lay ñaan ñaari màndaa yu bu ko romb yem ci loolu nga waxoon ak senegal yi nga waaj bu ëllëgee yàlla may la jàmm may jàmm Sénégal nga dem ci njekk ak teraanga keneen ñëw sa place àggali sa liggéey jàmm am waaye ñetteelu mandat na lay indi ak problème te su